ñu bëri gis ne daal li nga xam ne kat mooy ilaaj yi mooy Macky Sall daal di fixé date bu nga xam ne mooy élection présidentielle bi laataa njeexitalu mandaam ci ñaari fan ci weerum avril gouvernement bi dafa woon intention respecté ndogal bi nga xam ne moo tukkee ca conseil constitutionnel di ya nee na li nga xam ne mooy décret présidentiel bi nga xam ne dañu woon day dàq wot bii ginnaaw bën fësali abrogation décret boobee daal ki nga xam kat mooy njiitu moom nee na day tàllu ay yoxom woo ñi nga xam ne ñooy langu politique yi ngir ñu mën a waxtaan Agib sumaaree moom nee na waaw dana ca bokk ndax gis te ne kat lii nag moom mooy mën a fexe rek ba ñu génn ci guute gi nga xam ne moom la Sénégal nar a dëgmal ne daal yoon ba mu jël baaxul ki nga xam nag moo bokk ci kuje gi day tam nekk fa candidat di Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom nee na weccante ne xalaat ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ginnaaw ba mu ko invité fale ca uh, makkaanam ne daal waxtaan nañ ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi waaye ñu bëri yaakaar ne itam moom dana bokk ci waxtaan wile député Cheikh Bara Dolly waxi nopp moom nee na day daal di nangu loxo bi nga xam ne moom la ko ma Macky Sall tàllal ndax gis te ne ci dialogue rek maanaam ci waxtaan lañ mën a fexe daal ñu mën a déggoo daal di jéggi yi nga xam mooy crise bii. ñeneen ñoo xam ne d'accord nañ ci di coalition Karim 2024 ñoom ca bañu ca tasal xibaar yi nee nañu waaw ndax lépp daal unité la. kon daal di fësal ne seen engagement du daal di soppeeku ci ñu bokk ci waxtaan yi nga xam ne moom la Macky sàll amal ngir rek ay élections yu wér te wóor ñëpp mën cee bokk ak yu leer Malick Gakou moom it nekk candidat ci présidentielle bi nee na daal njiiti réew mi la mu war a def naam ay discussion waaye bu mu fi wax waxi dialogue wala sax ñuy négocier Anta Babacar Ngom moom fa mu taxaw daal la taxaw nee na kat du daal di yaa uh, soppi lenn lu nga xam ne waxoon na ko ca ca kat yu njëkkam Khalifa Sall moom it neewul waaw neewul waaye nee daal waxtaanee daal loole nekkul à l'ordre du jour nee na la mu bëgg daal mooy ñu mën a jàpp date bu nga xam ni kat ñëpp daan ci d'accord bu ko defee ñu mën a dëgmal ci wàllum élection